parti Arfan ñëwaat na ci actualité bi si nu mu gën a yaatoo alors euh, ponk bi nga xam ni itam indi na ko mooy li nga xam ne que moo di euh, nii ces euh, opposants ne sont pas crédibles neen wax kay élection législative yi la ñuy wàcc loolu tamit question la Arfan le war le fait que ku nekk di gént wax est-ce que nous sous-entendre par là que ni y a quelque chose qui se prépare di élection législative yi. am na ki ma ne tey si suba si Thierno Bocoum il veut être député te il a raison parce que gis nañu que élection législative à la colliale dina ñëw mu ngi ñëw suñu kanam moo nga gis les ñi multiplier les points de presse là parce que veulent être députés que ça soit Bougane que ça soit Tierno bokum mais Thierno devant le parlement. ils veulent être députés euh, ils veulent être députés et c'est normal dëgg dëggul ma man tamit man je suis pas nihiliste. Hmm. man lu baax damay ne baax na. boo waxee safaan ne la ah diw wax nga safane le fait que Bougan veut être député, mais c'est normal. C'est un citoyen sénégalais. Il a des ambitions politiques. Tchernobokum, il veut être député. C'est normal. C'est un citoyen sénégalais. Il a des ambitions comme tout, tout, autre, opposant. Même, même nous, journalistes, même des journalistes, ils veulent être députés. C'est normal. chaque assemblée chaque eh, eh, eh, comment dirais-je hémicycle am journaliste bu dem day am journaliste bu nekk député. Hmm. on a vu le cas des Ameta Aïdara ñeneen ak ñeneen ba pourquoi pas yow pourquoi pas man. Hmm. loolu c'est pas des postes yoo xamante dañu war a dañuy dañu ne dañuy choisir ñu ko war a doon waxuñu ko waxuñu ni député am na assemblée nationale ay maire yoo xamante mënuñu bind mënuñu lire dégguñu tubaab français wolof la ñuy làkk. mais bu ñu seetee ci critères est-ce que maire est dinañu nekk ay député déedéet donc il n'est pas dit que d'ailleurs ça le bon na ci lu tax de suñu député yi fii médiocre on choisit pas les critères alors ñun ku tëmb fële rek gisa ay député yi doon fecc daadaa li barke Demba Ndiaye léegi ay député lañu assemblée nationale ñoom kuréel ma ki ñu doon yëngal ba génnee seen taat yi ci biti léegi ay ay ay ay député lañu voilà assemblée nationale moo mel noonu nit ki day tëmb fële rek ñëw nekk député par chance yàlla moo koy joxe minimiser wu ma kenn loolu yàlla moo koy joxe. non mais loolu moo am loolu moo am donc Thierno mu am na droit nekk député gaan am na droit nekk député. Hmm.

parce que tu veux des récupérations politiques. Que ça soit Bougan, que ça soit Tchernobokoum, que ça soit Kenen ak Ils veulent des récupérations politiques. Mais bëgg n'est que député. Yaakaar loolu as askan wi man bëgg naa que député nga wax leen sa doléance yàqul dara man mi Arfan ma jaakaarloo ak askan Sénégal man ne man Arfan beug na ngeen fal ma Ce matin, assemblée nationale les maires def ci plateau yi ma fait la même chose wala lu rag

pourtant Bougane tegul ci table bi sénégalais lu mu amul ben document la technique document bi sa ubbiwul page bi. mu document ba ngi ni c'est pas <laughs> c'est pas confidentiel mom déjà mu ngi daw <laughs> mu document ba ngi ni mais c'est pas confidentiel damay bañ ñu ne ma dama def recel de document administratif. wala faux et usage de faux hein lu muy daw ba daanu. nga ne ay lan ay kayit. ay kayit la teg <laughs> bugaat jaru ko da nga bëgg a député neen sénégalais yi waajal leen seen bopp. élection législative xam naa dina ñëw ci lu yàggul dara man bëgg naa nekk kandidaa bëgg naa présenter liste pour nekk député ñu la sopp say soppe ñoom tamit ñu waajal seen bopp mais jarul ngay sos wala jarul ngay waxal régime wala jarul ngay tuumal ay nit. pour nit ñi bëgg la sénégalais du noonu lay bëggee nit ñoom de ba léegi xamuñu sénégalais yi seen comportement bi. toppee si tànku. déedéet voilà Sonko ni mu doon def Macky Sall. ñoom Bougane xamuñu comportement sénégalais. non suñ toppee euh, topp si tànku Ousmane Sonko Sonko ni mu def Macky Sall moo taxoon sénégalais. bëgg ko déedéet c'est pas la même chose. Euh, Sonko Macky Sonko Sonko dafa créer Macky taal ko mais Diomaye. ñom jomay ñoom mais Bougane Sonko ak jomay duñ ko tal duñ ko japp duñ ko dara. duñ ko japp duñ ko def dara gis nga Macky Sall erreur bobu la def te il va regretter cette erreur là toute sa vie. Hmm. Ousmane Sonko dafa juddu di wax ne ko ci yoonam di dénoncer di dénoncer mais comme Macky bugul gis opposition mu def erreur njumte bu reuy dina naan dafay radier waji da koy radier inspecteur d'impôt mu comme Ousmane Sonko mu may waxal ni dem len ngeen ràjjee ko mu am ay kilifa borom daraja yu baax yu ko xelal ñu ko ne no ki bu ko ràjjee bu ñu sañon baye ko mu garder postom mais nga ignorer ko am na ñu ko doon xelal ah ci jamono même Amadou Ba il paraît que même Amadou Ba bi il n'était pas d'accord pour ñu ràjjee Ousmane Sonko fa la jaar ñu ne non Amadou Ba mom moy jox Ousmane Sonko information yi non Amadou Ba est-ce que. ko yaay ngi fàttaliku kàddu yooyu fii ñu ne Amadou Ba Ousmane Sonko poulet am la moom moo koy jox information yi parce que Amadou Ba a opposé s'est opposé ci la radiation de Ousmane Sonko mu ne Macky kii bu ko radier mais Macky Sall comme moom kaa il a la fougue kenn mënu ko arrêté moom day fayantu mu ne bàyyi ma radier waa ji mu rajee ko waa ji yàlla taal ko nag ñu ne déet waay mu commencé di dugal ses baton dans les roues de Ousmane Sonko muy. continuer de Khambataal lui. Maki a créé Ousmane Sonko. Son farouche opposant, c'est lui qui l'a créé. Mais nous, Ousmane Sonko, ils, ils, ont retenu cette leçon-là. Tu crois qu'ils vont faire la même erreur avec Bougan ou voilà, qui, qui, qui, que ce soit Ils vont pas faire cette erreur-là. Nous, nous avons fait ma opposant. bu yeboo nañu opposant yi dem defaraat xam xamné nii fi fii ku <laughs> taalu yow yaay taalu sa bop <laughs> kenn la tal de ma président benn premier ministre du la taal ils ils vont pas répéter cette erreur de Macky là. alors Moi de que ça soit Bougane c'est que hmm. wala ma permettre tout Bougane. Hmm. allez-y devant. il faut que Bougane xam gis nga ko dem ba min sa coow yab te sénégalais ngi bëgg Bougane pour moi ku miin sa coow da lay yàpp même booy coowaat sax su lu lu dëgg ñu xam ni que yow yow yaa am dëgg comme gars yi miin nañu sa coow dañuy romb ñu ne ah waa ji nii ci koñ bi de koñ bi de ci lii la dëkkee fii ñoom moom day coow guddi day coow bëccëg bàyyi leen ko foofu bu leen bu romb leen parce que dañoo miin sa coow parce que dañoo miin sa coow te Bougane sénégalais ñu ngi commencé miin coowam te loolu baaxul ci un politicien. il est, parfois, il faut garder le silence pendant un bout de temps. Idrissa Seck, il s'est opposé à Macky Sall. Macky Sall, a mis deux ans à la tête de ce pays. Tu a dit Idrissa Seck commencer di wax le régime de Macky Sall mais dans le lu mot ñaari at yari at Idrissa Seck en 2012 Macky Sall ba mu Sasek, Idrissa Seck dafa toog waxul ci mom waxul dara. donc il est mature politiquement mom non il est il était mature il dit mo yàq bopam mais sinon sinon fi Sénégal politique non ken gënu ko am profil politique Idrissa Seck mo yàq bopam parce que mom moy nek ci ay combine politique dafa mous mous ba yakal bopam day dugg rocceku rocceeku wat rocceku dugg lolou mo yakal Idrissa Seck mais politiquement il est mûr ken gënu ko am dayo politique mais. Bougane oppose à un régime boo xamante dafa def trois mois ngay commencer di dor bam bam bam di organe di multiplier tes sorti tes di dor bam bam bam bam bam bam mais da ngay dem ba sénégalais yi la après sénégalais ñuy mujjé mujjee ko comme moom dañ koy jéppi c'est pas comme ça qu'on se pose je l'aime trop chaque jour mané la ci plateau bi j'aime Bougam. je l'aime te loolu wax je crois que waxnako sénégalais yépp hmm mais moi je suis pas d'accord avec le mot de lu Je def finir je suis pas d'accord mais j'aime la personne de Bougan. c'est l'homme parce que je sais lu tax ko citoyen sénégalais bu il ba créer de l'emploi il a créé de l'emploi dans ce pays Bougan dafa am ay société Il di ubbi ay ay fenêtres ay fenêtre fu ne di recruter ay nit di créer de l'emploi donc comment mel noonu da nga koy téye Bougan un politicien c'est pas un politicien dans le sang. C'est un ménageur. Un administrateur de société. Okay. Il y a des failles dans sa politique parce que de Mounouko, il ne peut pas. Il a des milliards, il crée un mouvement de bonne volonté, action sociale. dem dem pourtant ce mouvement a mouvement politique pourquoi pas c'est vrai loolu tamit do ko blâmer parce que citoyen bu ne fay am ambition politique bu fekkee du ko bu ko jaré mais warna dem jàngaat ñu xelal ko naka la ñuy politique Sénégal parce que politique bu ñuy défé Sénégal mo gëna salté ci yeneen réew bi te boko minulé miinulee dalay yakal lu il faut nga miin ko. Hmm. il n'est pas dit que chaque personne doit être un politicien non non non néna la politique Sénégal dafa différencier avec politique bu nek Mali politique bu nek Burkina politique bu nek France wala politique bu nek euh, kii pour diverses raisons parce que Sénégal politique nu koy défé Sénégal dafa salté té il faut être prêt à ça Ablaye mo né bo déclarer say waajur ni que da ngay politique Sénégal hmm. da nga len di xamal ni que à tout moment mën nga dem kasso sa ben tank mu ngi kaso sa benn tànk mu ngi ci biti est-ce que comprendre comprenez c'est des risques qu'on prenne. tax ma la politique Sénégal dafa salte politique Sénégal lay dem vu. ci sa ton passé. Hmm. ton passé. Hmm. remanier ça passé Ce judo. yan anam nga qui sont tes parents leneen ak sa famille dem dem andi lu bon

il faut, euh, il, faut, il faut que tu sois prêt à souffrir mentalement et physiquement. Parce que dañu lay brutaliser. dañu lay xoñoñal dañu lay car. booy dem dañu lay kar dóor la ay ay ay bal euh, bënn say say pneu saboter say pneu pour nga accidenté ñu andi la ay alkaati sa kër. mais loolu Arfan loolu kan moo ko dund ak Arfan. non loolu politique Sénégal la. Ah. même Abdoulaye sa dundoo na ko Idrissa Seck dundoo na ko li may wax ni du Sonko moo tax ma wax ko de. ñi may seetaan te ñu xam histoire Sénégal xam ñu que li may wax ni Idrissa Seck dundoo na ko. Hmm. ba ñu koy jàpp di ko dugal ci kaso Idrissa Seck ba ñuy dem këram di fouiller pour trouver de de la drogue wala leneen ak leneen. ñu ñëw ne am am Abdoulaye Wade ni que lii la ñuy fekk ci kër Idrissa Seck mu ne la yéen da ngeen cuune. bàyyi Nitki, nit ki politique Sénégal Abdoulaye même il a été victime de ça ci jamono Abdou Diouf waxuma ci Ousmane Sonko bu ko dundee récemment ni ci jamono Macky Sall dam la di jox histoire politique Sénégal. mba ci ñoom Senghor Mamadou Dia falla perdre sa vie mooy maanaam bëtam Kasso? Hmm. kaso dañ ko jàpp yóbbu ko Kédougou Mamadou Dia. Moi, je suis politique Sénégal ak yeneen réew politique fi comme ay si tu n'es pas prêt à ça politiquement et mentalement physiquement vaut mieux de renoncer il faut renoncer tout de suite il faut renoncer tout de suite alors dafa am ñoo xamante ñoom nous politique te politiques. politique ñoom dañoo un politique presse mu nous braqué ay caméra ci yow jël ay micro di wax pour nous, c'est la politique Sénégal il y a quelque chose au-delà de ça au Sénégal hmm. aspect mystique parce que si amulé gàllaaj dañ lay yak dañ lay ray légui légui nga dëgg diw diw diw diw ici repose dañ lay dañ lay je ne te casse pas c'est ça la politique au Sénégal Ousmane Sonko bo amulone ko bu donc si tu n'es pas prêt à ça au Sénégal vaut mieux de renoncer en politique parce que bon, jàppee ni que nit ñi dañ lay bëgg ci franchement tu te trompes tu te trompes. alors mi sais exactement par rapport à qui n'a xam que moo euh, Bougane ak li nga que moo c'est sorti. alors enfin, dañuy daal ñëw si ki n'a